mais bo jëlé phénomène bi gis nga ñun dafa am lo xamné dañ koy saggané mhm. muy ñaan. waaw ñaan ñun léeg-léeg dañ koy saggané mhm. lu ñëw rek ñu né yalla baax na yàlla baax na yalla baax na. yàlla bay sotto dama mësa dégg ci seen Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum. Mhm, mu né yalla na fi yàgg te ak mboolem xalif yépp mu né yalla yalla yàlla na yàlla baax na kenn ko. léeg-léeg mbir xew mu né nit tok naan yalla baax na yàlla na. mu ne wala yalla du ko seetaan. noonu la ko waxe yalla du ko seetaan mu ne yalla mi seetaan première guerre mondiale mu am ba jeex seetaan deuxième guerre mondiale mu am ba jeex kenn waxantul ndax baax na wala baaxul maanaam dafa bëgg a nit ki da ngay jël sa ay dispositions. par rapport à certaines situations. Mhm. tey jii nii bu ma la waxee ne dañuy sàggane ñaan lii comme ni ko si daat waxee dara luy provoqué lakk gisuñ ko fa. Mhm. du sondeel du courant du allumette du pétrole du dara du dara dégg nga si reportage bi soxna si nee na am na ñu fa ñëw ay boroomi xam-xam macha allah lu ñu wax. Mhm. dafa am ñu ñu laal seen njaboot ñu mer doxale niñ doxale ah.

dafa am ñoo xamante ni suñu borom subhanahu wa taala ñun bu ñu jàppee ni mhm. ñun rek ñoo nekk si kaw suuf di dox oh, xamuñ li xew la yàlla dafa bind ay mbindeef yu bëree bëree bëree bëri malaaka jinne lu ñu xam ak lu ñu xamul ndax nee na wa maa ya'lamu junuuda rabbika illaa huwa looloy lan yàlla nee na man li ma sàkk man rek maa ko xam dëgg la léeg-léeg nit dugg biir géej gis fa loo xamante nii ku ko waxoon ne am na si àdduna mu weddi ko léeg-léeg nit dox guddi wala digg bëccëg am lu mu gis loo xamante ni fa lay jaare bopp bi dem moo tax toujours yenn waxtu yi ñuy wax ne ku koy génn na ngay muslu na ngay wallaay lu mel noonu moo tax sax mami euh, créé rubrique am bi ci waxi mag ñi mhm. ci yeete mag yi ci mhm. digle borom xam-xam ci mhm. seen ay phrase bu génn njooloor baaxul am na heure yoo xamante ni waroo ko génn yooyu yëpp mag ñi pourtant jàngal loolu gis nga sëy ñun ñoo sàggan rek comme loolu moo tax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam rek waxoon ñaan moom mooy suñu arme nañuy moom fu ñu ne ba pare dafa daan jël ay sëtam yooyu Ousseynou ak Hassan di leen teg di leen léem di leen di leen léemul pour yàlla musal leen ci seytaane ak bët ak leneen gis nga tàkk-tàkk lañ wax Iblis bàyyi Cheikh ma xamal keroog bi ko suñu borom subhanahu wa ne ko mhm. na nga sujootal aadama mhm. xam-xam yi ne nañ du comme julli mais mu reconnaître ne aadama moom moo ko gën parce que yàlla loolu la dogal mhm. dégg nga leen bi Iblis bañee yàlla ne ko maa manaaka allaa tasjuda qaala xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin man yaa ma bindee si sawara Iblis si safara ko yàlla bindee maam aadama yaa ko bindee si ban kon a a xamante ni boo ko defee sa kër ma jox ko mbokku téléspectateurs yi yóbbal aayatul kursi yu boo ko jàngee benn mhm. nee nañ dana aar ñeent fukki kër sa kanam ñeent fukki kër sa gannaaw ñeent fukki kër sa ndeyjoor ñeent fukki kër sa càmmoñ bis bu jot bis bu jot booy tëdd nga def ko aayatul ah, kursi yu mhm. ndax day lakk jinne yu bon ak rab yu bon yi nga xamante ni dañuy ñëw pour di faagaagal mhm. doomu aadama yi wala pour di leen yàqal macha allah te yàlla nee nañu foofu rek laay jeexale ñoom dañ ñuy gis te ñun duñu leen gis